yi ñu nekk nag euh, ci Tivaouane mooy barabu ki nga xamante ni mooy xalifa bi ju fi jóge bu yàggut muy euh, alaaji Abdoul Aziz euh, Sy Al Amine mi nga xamante ni moo fi jóge bu yàggul te kii di sëñ mbay Sy Mansour wuutu ko mu nekkoon gis ngeen barab bi fi ni ñu ñëwee di siyaar mu nekkoon ko xamante ni mission bi mu doon dox ci yoonu tarix Cheikh Sidi Hadji Malick Sy mu nekkoon mission bu am solo moom na fi la fi la suñu borom jëlee bu yàggul Euh, ba tax na gis ngeen fii ñu nekk fii ci esplanade bi nga xamante ni moom projet bu mu bëggoon la ñu ñëw fii moom fi la fi la lañ ko denc ñuy ñaan nag fekk fi góor gu baax gi euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi lay fay. Uh-huh, uh-huh. yaa ngi yaa ngi jóge fan. maa ngi jóge boori Ndar ci Pootu. waaw dëkk bu ñu wax Pootu. waaw damaa ñëwoon pour siyaare góor gi. Uh-huh. waaye nit ñi bare nañu bare waaye goo xam man mënu ma am fu ma aw bay dugg. moo ma priorité ma mujj taxaw rek ma tàllal samay loxo ñaan ci barke euh, góor gi yàlla may nu kattan may nu lépp loo xam ne di ñoo ngi fi doon wut yàlla na ko yàlla jox ti di leen yéen ñi ngeen xam ne yéen a nekk euh, journaliste yi ne ci rajo yi ñu leen di sant di leen ñaanal yàlla ngeen am jàmm gën mën a seen liggéey ak ni ngeen ko toppatoo ak ni mu rafete kenn kenn gënu leen man man defar mbiir mi ndax doo yii mbir daana mën nañoo wax ni média bi fu mu yegg yéen a ko fa yeggal kon jaar nañu jaajëfal leen wasalaam. maanaam euh, ci benn laaj bu mujj rek lan nga jàng ci kii di Serigne Abdoul Aziz Al Amine ni ma jàng ci moom bari na mënuma taxaw fii di ko wax parce que góor gi yàgg nañu yàgg yàgg na yàgg goo xam ni gi bi mu jotee ci xilaafa gi euh, mën nañu wax ni kii nekkoon na fi xilaafa lu yàgg. ndax bu dee dañuy dem ba dénk ko baatu kër gi dénk ko lépp kon nit la koo xam ni jëmm la joo xam ne jii daal moom yàlla wubbi woon na buntam bu yàgg te itam moom it fottul woon ay buntam dañu doon ñëw ci moom ku ñëw bëggul woon sax nit jëm si ci yow mu mu di la téye nga di ko téye loolu mosu ko bëgg ku mosoon am di jàkkaarloog nit yi am yitte ni xàmmewul mag xàmmewul ndaw doon na jotal léppam loo xam ne lii kilifa yi dénkoon nañ ko defe naa def na ko bay def ci loo xam ne lii kenn kenn xam jërëjëf mu nekk témoignage boobu ñu def ci kii di euh, Serigne Abdoul Aziz euh, si Al Amine mu nekk koo xamante ni euh, wax dëgg yàlla mission am mission nekk na mission bu am solo sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay baax baax. tur bi. Omar Saké Fall. Omar Saké foo jógee. gaay gaay bu Cheikh Al Hadj Malick. gaay fi Cheikh Al Hadj Malick juddoo fa laa jógee fa laa jógee ñëw guddi ji bi sallallahu alayhi wa ñu fekk si fekk si Maodo. di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan daal lépp yal na ko yàlla nangu ci barke alxuraanu karim ñaan yàlla mu gàmm gi yenn bu nekk suñu mujj mujj mi nga gàmm suñuy sëriñ kilifa yal na leen yàlla dolli leer yal na leen dolli suturaal yal na leen yàlla dolli yërëm si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom guddi gi euh, kii di alaaji Abdou Aziz Sy Al Amine nekkoon na xalifa bu fi jóge bu yàggul euh, lan nga mën a jàpp ci moom euh, kooku moom kooku moom kooku moom beneen beneen mbir la Abdou Al Amine moom macha allah yokk sant yàlla bu baax na nit moom bala nga xam rek bala koy xam dëgg-dëgg rek mu jógee fii moom moom moom titre la woon si sa tarixa Cheikh la woon si si kër Maodo kon moom itam duñ koy dolli ñaanal yàlla rek ñun xale yi surtout ñun xale yi ñun ñoo gën ñàkk ñun jeunesse su kër Cheikh Alhaji Malick ñun loo ñàkk Haji Abdou di ko ñaan yàlla rek fu fi mu tëdd yal na yàlla yokkal leeram si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gàmmu gi daal yal na yàlla nangu lépp yal bu mu nekk suñu mujjum gàmmu ñëw na si jàmm yal na si delloo jàmm salaam si barke Seydina Muhammad ziar naa ñëpp nag Sénégal yëpp na rawatina waa gaay gi ma dëkk jërëjëf mu nekkoon témoignage bu émouvant ci ki nga xamante ni euh, taalibe Cheikh la ñëw fii euh, moom itam ziar ziar bu rëy.